وسيمه في حسني وتزيين زمن سيرة دينها زمن سيرة دين ناصر الحق دين زمن سيرة دين حقي بالحق دين زمن سيرة لوحتكم طلعت الحق دين زمن سيرة يتيم خشدينا سمن زيرته كجدا تبيل لنا سمن زيرته ناصير الحق جدينا لبق حقي بالحق جدينا لبق طلعة الحق جدينا لبق ناصير الحق جدينا حقي بالحق جدينا طلعة الحق جدينا تاريخ ابي جدينا وجدنا تابي الجان جدينا يا بال السيد جدينا يا بال السيد جدينا سيدي ريد جدينا كل جامعي جدينا تابي الجان جدينا كل جامعي جدينا متابي الجان جدينا diina fonk nday yekk baay loxo ca kaw bu ni jànni sa yaay ci diina dimbalil yaay ci diina dimbalil yaay ci diina jàppaleel baay ci diina yërëmal maam ci diina dimbalil yaay ci diina jàppaleel baay ci diina yërëmal maam ci diina maam Maodo ko war jamaana ay waxam du diina def ko tikfuur ci diina téereb yàlla bi diina muy alxuraan ci diina ak hadis yu wér diina teg ca ijmaa ci diina kon de Maodo am na lay am na lay sariixa ko am na lay xaqiiqa ko diina boo soppee Cheikh yow bala ngaa dee den wàlli yu kamaan boo soppee Cheikh yow bala ngaa dee den wàlli yu kamaan maam Maodo ko wax diina متمنى يحب شيخنا إلا إذا ذا لغتنا وليت بيتنا وليت بيتنا وقتي وعلوغا تبي الجنة لني تجيني لغي تبي الجنة لني سبي جنة بشير تبي الجنة لني سبي باي باي باي تبي الجنة لني سبي باي باي باي تبي الجنة لني سبي باي باي باي تبي I'll let you the doomi bay bay fay tabbi aljana sëti bay bay fay tabbi aljana ana sappi sëñ Babacar tabbi aljana doomi bay bay fay tabbi aljana sëti bay bay fay tabbi aljana waa Medina Salah tabbi aljana xale Medina Salah tabbi aljana waa Medina Salah tabbi aljana waa Medina Salah تني دم في ألدنا أنا ستي باي باي باي تني دم تبي ألدنا ستي باي باي باي تني دم تبي ألدنا ستي باي باي تني دم تبي ألدنا ستي باي باي باي تني دم تبي ألدنا وامدنا سلا تبي ألدنا وامدنا تني دم تبي ألدنا بجل سوما بجل كيمسين بجل سكور سوما جنگل فاتح شديد ميم يديد استغفر الله شديد عظيم الذي لا اله الا الله شديد هو الحي القيوم شديد فنوير شديد صلاة الفاتحة جورم فكية صلاة الفاتحة بالله مباري جاري صلاة الفاتحة سنة جفل رب الدين جورم فكية تجاكي هيلا لك تبعي لا اله illallah waxu ca kaw la ilaha illallah bur bi kenn la jóg leen màggal yàlla jóg leen màggal yàlla jóg leen màggal yàlla jóg leen màggal yàlla allahu wahidun allahu wahidun allahu wahidun allahu wahidun amul day amul baay bur yàlla kenn la bur yàlla kenn la yàlla kenn la amul day amul baay bur yàlla kenn la الله صمد أمر داي أمر باي بور يالا كن قل هو الله أحد الله صمد أمر داي أمر باي بور يالا كن قل هو الله أحد الله صمد أمر داي أمر باي بور يالا كن قل هو الله أحد الله صمد أمر داي maamul baay ngir yàlla kenn la yàlla juróo kenn te kenn juuru la amul tey amul baay ngir yàlla kenn la huwa allahu ahad allahu samad amul tey amul baay ngir yàlla kenn la nga jàng fële la téeméeri yoon nga jàng jëfëra li mu fukkal ñaar allahumma salli ala aydi rawat loxo jàng allahumma salli ala aydi rawat Tajidin ni Serigne Babacar teew ci diine Serigne Babacar teew ci diine Serigne Babacar teew ci diine Serigne Babacar teew ci diine Serigne Babacar teew ci diine moom la ñu tuddee doom ji teew ci diine Serigne Babacar teew ci diine moom la ñu tuddee doom ji teew ci diine Serigne Babacar teew ci diine ana sa pay Serigne Babacar ana sa pay Serigne Babacar Babacar ana soppi sëñ Babacar maam buy jàlle ñu maam buy jàlle ñu ci jamono bu metti bi ci jàngoro yu bari yi wax leen xalifa Ababacar xalifa Ababacar xalifa Ababacar maam buy jàlle ñu maam buy jàlle ñu maam buy jàlle ñu maam buy jàlle ñu ذاكر تجري وإذا أتى كان مسرورا يقال كن مسكين كمالا كن مسنين كمالا كن مسكين كمالا نيربين ناكر كمالا كن مسكين كمالا نيربين تايا كمالا كن مسكين كمالا جاك جدي نامبل كمالا ميو دي تجين كمالا جاك جدي نامبل كمالا سوما ديوكو يا مي ما تبارا كمالا ميو دي تجين كمالا كن مسكين كمالا يا جرمان قلبي جرنا ماتل كمالا يا جرتان Mustafa jar naa màggal liir bu ñu laajal waa Louga di ko màggal liir bu ñu laajal waa Louga di ko màggal Tijaan ñoo ñëw Murit ñoo ñëw Xaadir ñoo ñëw Laay ñoo ñëw Tijaan ñoo ñëw Alpulaar ñoo ñëw Alpulaar ñoo ñëw Alpulaar ñoo ñëw Alpulaar ñoo ñëw Tiwaawan loxo yee Tiwaawan la ko maala Tiwaawan loxo yee Tiwaawan la ko maala Cheikh Tidiane Sy yal na fi yàgg tuur la Cheikh Tidiane Sy yal na fi yàgg tuur la Sëñ Abdul Aziz yal na fi yàgg tuur Cheikh Abachir yal na fi yàgg tuur Cheikh Abachir yal na fi yàgg tuur la Sëñ Abdul Aziz yal na fi yàgg tuur la Serigne Mbaye Sy yal na fi yàgg tuur la kenn ma sëkk li ba daan kaanama تنبي ربنا وصليا يا إلهي وسيا ملايكا على محمد تعالى في القدام محمود سي أبو مرا الله هو أنا صبي سيد حاج مالك سي الله فلا ترى أحدا وسيمه في